basket wala lan. non yàlla def loolu moo def lan. kin bis barde quoi. kan moo la wax ne dafa barde. non mais si dégg loolu moom nee na dafa barde si man. waxul loolu de. <laughs> si kin bis <laughs> da ngaa barde nga wax wala. man xam nga bi yoon mu nen naa ko incarné nga ni ma jàpp ni man. maa nekk di incarné bi mu ñëwee moom wala la man moom moo ma incarné sur le plateau maa ngi yéeg mu ne ma téye turo boo téye jantal yaa may daaneel bu ma tuddee yow lay xalaat téye mon amour eh, eh, préféré. Eh, yaa <laughs> ah, xam nga wax na dama la doon def wax na bari na. ah d'accord D'accord, kin bis léegi la ak Sacha. léegi bu Sacha nanguwul. c'est ça kon tamit ko <laughs> allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi. salaamaaleykum. man de. waaw ma tax woote. waaw. ndax ñun ñii ruuj nañ suñ tool boobu ba léegi. waaw te mënunoo fexe dégg nga maam baan dañ ji jiw jiw jiw jiw jiw jiw jiw gi ñu wax. waaw joxaguñ benn jiw. waaw fi na maa bi. waaw mi ngi ñuy déggu jiw naan ñu ruuj leen seen tool yi. waaw maanaam ruuj nañ tool yi ba noppi. waaye fi mu ne nii. Mhm. lu ñu def ci tool yi fi mu ne mooy li ñu jaaxal. Mhm. ndax it nag ñoom boo seetee ba seet daa mel ni ay audit rek. moom moo leen moo leen di gënal seet daal audit moo leen gënal fi mu ne nii joxe joxe joxe joxe jiw bi nga xam ne moo jëm si baykat yi. waaw parce que non non non je suis d' accord je suis parce que c' est pas logique waaye aussi fii vrai ah parce que bu fekkee semence yi joxe wuñu ko depuis léegi baykat yi commencé def semence yi tobbare tobbare tobbare yooyu def ndàmbe lii mais mbare mbare ma. bon euh, hikka min dañata guerte min dañata maaro ha ɗum fof ɗon fof wawata ah, wonde no d' accord na d' accord na daga kam ga riiw sax waaw munen no ko oditede loolo loolo yon sax loolo yolla wawi enen yi waaw mbay mi lan yaakaar. na na bato ba nga xam ne ñu ngi naan bato bato baa ngi géej gi. waaw indi indi indi indi indi indi jiw bi. waaw dañ koy jotagut daal. waaw dañ koy jotagut. waaw li bëgg a wax nag ne ko Macky. waaw wante nii la fi defoon ba ne ko cëppeel ne ko cëpp ci suuf. waaw moom non xam ne loolu non xam ne loolu. xam ne loolu daal loolu daal laa amoon lu may wax. waaw kay na ko dégg te na ko moytu it. non dégg na ko xam ne loolu xam ne ni wàddi yooyu le de ba ñu wàcce ko noo xam ne loolu. waaw kay waaw ah, kay merci merci non xam ne loolu il faut ñu joxe semence yi il faut ñu joxe semence yi nawet bi tàmbali na. ñu may si bi yoon duñu la yóbbu Fuuta nga dem bay. Eh, pourtant mën a bay nekk def naa ndam bay li de mi réew mi de. dama lan nga daan bay euh, euh, bay naa si séeréer yi bay naa gerte. gerte bay naa dugub dugub suuna. Hmm. boobu dama doon jàpp fas parce que dama commencé woon téye machine. ma commencé dagg dugub yi gars yi ne ma noo kaay da ngay jàpp fas ba nga mun ma woo man waak Ali. bi yoon boo ànd ak isa lu fas bi mu tourné boo demee ba nga jàll jeexal raasi bi nga rek mu tourné ñu ñëwaat. ñu ñëwaat loolu waaw ngeen koy jàppee. loolu fas bi dem. non nañ bàyyi nawet bi ñëw rek ñu envoyé la foofu. mu non dinaa la xamal lenn de fi mu nii nii nii même la dëggin dañuy wax maa ngi moom dañuy wut tool la dëggin. bonjour ça va mon ami ça va bien naka mu nu mu demee. ça va oui ça yaa ngi fexe ak euh, alhamdulilah waay. waay waay ça va bon je voudrais dire euh, bon euh, Sénégal. oui partout les fume euh, partout euh, au Sénégal maintenant les femmes fument quoi. yokkal sa baat waay jigéen ñi dañu nekk di tux léegi sans pitié bon sans rien di tout. Euh, bon doy na waar doy na waar sans bon léegi bu njëkk ba da nga gis góor guy tux bon da doon ruus. mais léegi jigéen ñi ñooy tux sans pitié ñooy ñooy ñooy ñooy tux et puis léegi ruusatuñ ci dara. donc voilà c'était pour wan leen un peu danger bi nga xam ni mi ngi ci tux jigéen gi tux quoi voilà. waaw waaw waaw je suis parfaitement d'accord je suis parfaitement d'accord parce que léegi maintenant les femmes fument trop et puis y a les dangers nga boo nekkee jigéen ngay toog nga umb ba teg ci sa doom bi si commencé xam ay ay ay ay 7 centimètres xam nga yooyu te loolu mun na indi bu juddoo rek mu wax li jox moom mu jënd benn benn set centimètres quoi xam nga booy bi mun na judd rek nekk saxaar yi di génn si nopp bi wala di génn ci bakkan bi parce que saxaar bi ngay toog moo tax quoi ça rendre compte quoi xalaatuñu loolu. et puis léegi dañuy jaay ne dañu nekk ci mode. mais euh, euh, euh, nañu bàyyi xel ni bon mais coutume yi nekk Europe ak coutume yi nekk fii sa fait deux ah. oui ça fait deux jigéenu Europe ñu mën nañu Sénégal dañu ko xamee woon ci moro yiw. après nekk yaay quand même. mais mais fi mu nekk nii amul jigéen ñi nekkatuñu yaay. nekkatuñu yaay parce que nekkatuñu ay exemple. wala C'est bien conseil barrière. public. Oui. Bon, j'étais le dans un euh, conseil public. Voilà, je m'appelle euh, bon, euh, Bourona Leptourbé, mais je m'appelle euh, bon, euh, Kumpo, quoi. Kumpo, voilà. <laughs> Kumpo, vous voulez vous C'est que Kumpo, mon X, Y. <laughs> Euh, Kumpo, allô ah.